waaw tey nag koor gi rek moo ñu taxoon a jógaat nañu liggéey bi nga xam ne moom lañ daan moom lañ ci daan def moom lañ ñëwoon doon ko fàttali ak di yeesalaat ndigal li suñ ci ndigal wóyal ko nañ ko daan defee suñ ci amul ndigal itam teg ko ci ndax ndigal rek mooy liy am njëriñ mooy lañ ko daan dundalee ci koor gi ci wàllu yi ñu daan def lii mooy liggéeyu daaw ba nañ ko lépp ci benn téere lii la ca demoon daaw li liñ jotoon ci bagage lépp 42 millions 625 mille la woon lañ ca dépassé woon lépp 39 millions 417 mille la woon lépp a ngi ci biir si ñu tënk ak lenn lu ne fa mu jógee ak nañ ko def lépp ñu ngi ci biir téere bi ñu tënk waxtaan yi nga xam ne moom lañ waajal ren itam yëpp ñu ngi nii te mawduwaat yi nga xam ne moom lañ tànn ren moo ne moo nekk nii ci ci bi ak ñi ko war a def ñëpp benn benn bu nekk ñu ngi ci biir lu ñu ci digal rek def ñu def loolu li mooy kii dog yi nga xam ne waajal nañ ko ren wax waxtu yu dog yi jàpp yi waaw jël seew mu ngi noonu ci sa daaw daaw nag ba ba defaloon ko ci xewal gu neex lool moom waaw te seet seet si ñu nga seet si woon liggéey ba waaw. li nga xam ne dañ ko bokk ci ci mënu ko ñàkk muy liggéeyu sëriñ bi sant yàlla bu baax am nañ ci xaas liggéey bi yaatu na lool. mooy foo mën a nekk te sa la sa la fa yéene sa poussé loo ko mën a loo ko mën a boole tuuti waaye yéen da ngeen am xaalis liggéey ko nii yoon yi war koo doxee war ko dundee lépp alhamdulilah am nga ci xaalis kon lépp ko bëgg ñu la ko yàlla suukar nan mu ngi liggéey bi lan moo fi nekk loolu lii liggéey bi loolu rek loolu rek moo fi nekk ku la ci jiitu nag yëpp da ngay ne te yomb sant suñu sant sëñ bu baax a baax di leen lépp ak tegu lépp mat di leen sant it ci taxawaay bi di leen gërëm baax def leen yéen dañ leen dama leen def ab soññ man sama bopp di ñaan itam soññ boobu mu soññ yoon bi yëpp ndax noonu rek la ko soññ yomb naa liggéeyal ndax bëgg gi rek moom laa la di ci boole dara kon nag bu leen yàlla xaas rëy na lool. dal na suñu xel lool. ba tax lu lépp lu mën a xel mën a dem ci loo xam ne nii nii nii doxee noonu yéen loolu am yéen a ngi ci lool waaye bu ñu sañoon nag lépp xool bu Sëriñ Tuubaa rek. am li ngeen am. doon bokk ak yéen doon bokk ak gën a gàtt te ñoom taw bi sëñ bi waaw taw bi sëñ bi sëñ bi waaw ko suba nga xam lépp dina yomb lépp dina yéen lépp lépp it barkeel topp ñu muy barke bu ñu topp suñu tey suñu dëkk jërë ngeen jëf